waaw si mbi ñu ngi lay laaj maanaam lan mooy sa gisul tey daal ci match bi di ñëw. bis bi bis bu am solo boo euh, ok ok. waaw waaw waaw maa ngi ñëw waaw waaw. yi hmm. daal di aw incha maanaam Sénégalais yi daal xir gi ñu ci maanaam équipe nationale ak ci seen réew ak malgré ak yi ak coono yi ñu fi jànkuwanteel ci dëkk bi yëpp waaye lépp dañ koy bàyyi ngir ñëw taxaw ci gannaaw gaynde yi. waaw loolu ma dëgg ah ñu ngi taxaw ak ki nga xam ne ni moom lañ dénk walla sport ci la ligue nationale des étudiants sénégalais en Égypte ak ki nga xam ne mooy vice vice président bi ah suñu layti moom dafa mel ne yow yaa ngi waaj ngir dem terrain. waaw ñu ngi waaj bu baax a baax ñu bu baax préparé bu baax a baax. waaw pour loolu moom lu am solo la. mais gis ne ah, Sénégal match bi passé contre l'Algérie maanaam qualité technique bi ñu doon xaar ci moom daal ak maanaam Lions yi ni leen Sénégal yi doon xaaree dafa mel ne dese nañ koo gis daal loolu moom yow lan moo ci sa xalaat ci loolu. kese bëgg-bëgg bi moo des joxewul gis nañoo gëm équipe bi daal. ah gis nañu suñu bi duñ def leen wax comme seen yeneen équipe yi ñuy joxe jeu ah yow li ñu waroon a joxe des na. Ah, mais nag est-ce que yaakaaroon ni tamit Sénégal maanaam keroog dafa doon incarné boo xam ne nii daal maîtrisé wu ko maanaam doon jéem a fekk si Algérie maanaam ci ni muy joué ba tax mu am ah, defet bi. non man joxewuñ daal danoo dese bëgg bëgg dafa am lu mel ni Koulibaly muy joxe wala Sabaly su ñu ko doon joxe man dina am ndam waaw des quoi des bu baax a baax. ah des moo des ah. gis ne maanaam kii di maanaam la star de Lyon Sadio Mané euh, de Sénégal maanaam ci équipe bu Sénégal est très très différent ak Sadio Mané maanaam bu nekkee Liverpool maanaam loolu lan moo ko ci sa gis-gis ci moom lay dellu day football défense day football milieu day football attaque mooy maanaam day rey boppam foofu. Mm. da ko bëgg day wane boppam. Mm. mais suñuy équipe nationale Sénégal lu ñu ko sant mooy ñu dugalal na def rôle ci biir terrain. Mm. mais dafa manqué trop trop trop du ko def. ah da ngay Sénégal mu assumé wut responsabilité la en tant que la star da ngeen ma de l'équipe nationale. non du jël responsabilité. ah war soo xoolee comme Salah que Mahrez. ñu ngi def seen équipe nationale yi Sadio Mané. gisoo ko loolu merci merci beaucoup merci merci. waaw ki nga xam ki nañ nag mooy. ki nga xam ne nii moo jiite étudiants yi fii nii ci Égypte ñu koy wax Ndege Maxtar Kébé moom moo yor wàllu bu jëm ci wàllu mobilisation bi may marché. waaw gis nga ko de kooku moo jiite wàllu sport bi tey jii mi ngi pare moom ngir ah, soññi Sénégalais yëpp rek